dal leen a jàmm mbokki internet yi ñuy siifu ci xibaar ginnaaw bi ñu leen nuyoo lu ñal nag fële ca Kaolack mbirum Mor Mollah Morgan moom nag këram gi nga xamee ne fi la waajuram euh, wu góor ak wu jigéen fa la dëkke woon moom nag dañ ko taal ni ki démb ci guddi moom nag nee na ñi taal danoo masque woon maanaam seeni xar kanam kenn mënu koo gis ñu def ca lu ñuul ñëw ñoo taal kër ga waaye nag nee na kër googee taal gi nga xam ne dañ kaa taal waajal nan ko waaye nag eh, eh, eh, waajuram wu jigéen yàgg nan ko woo di ko menace waaye di ko wax ay kàddu yoo xamante ni bi musuta neex benn yoon looloo tax nag tey taal kër gi nga xam ne taal kër gi gën ko def bett ko benn yoon waaye nag nan xam ne moom xeex bi nga xamante ne ci la nekk du ko bàyyi benn yoon da ciy gën a continuer da ciy di gën a am engagement bu baax a baax a baax taal kër ak bàyyi kër leemale ndaxte nee na kat waajuram wu góor moom ah, xaw naata na sax waaye waaye wu juróom wu jigéen moom yu si bëri mënu ko muñ da kay woo di ko yeggewaat loolu la ki nga xamante ne nag moo di Mollah daal di yëkki ni ki ay kàddu jëmale ko ci askanu Sénégal mi nga xamante ne bii bokk na ci ñenn ci ñoom ñu dem taal li nga xamee ne mooy këram fële ca euh, euh, Kaolack